Moustapha Fall maa ngi lay ziar. di la ziar bëgg naa la bu baax a baax maa ngi la doon wax ni euh, jël naa Zahra déjà ñu ngi doon commencé waxtaan. Euh, di nuyoo. waaw waaw waaw ni ni moom moom moom comme coach la. coach la moom su moom kenn du ko préparé. moom moom dañ koy jox terrain bi rek ñu ne ko ah, ayca. <laughs> voilà kon Dame Koumba yaa ngi noonu ma la nga nuyoo. maa ngi nii nuyu soxna Fatima Sahra bu baax a baax di ko dalal jàmm euh, di ko wax ne ci invitation euh, euh, ñu ngi ko ci gërëm ndax ndeysaan ko yombalal la dañ ko woore day ndeysaan mu daal ñuy accepter te loolu jafe na mm-hmm. surtout mu bàyyi liggéeyam xam naa dinaa ko partagé benn lien boo xam ne si képp ko bëgg a déglu foofu ci bitim réew mën na cee jaar déglu ko mën na ko mm-hmm. partagé ñi nga xam ne ñoo nekk ñoo nekk di ñu suivre ci rajo jant bi FM 88 point 6 Thiénière 88 point 6 jant bi Touba 95 point 2 xam naa ne nees tuuti tamit Sidi Lamine Diakhaté euh, di leen dugg si waaye tamit may nuyu képp koo xam ne rek yaa ngi may déglu ni ma koy waxee chaque jour. Hmm. di nuyu waa bu baax a baax képp koo xam ne rek yaa ngi ci euh, ligne maa ngi lay ziar di ziar suñu waajuru jigéen soxna Batal si la foofu ca Touba Aliya waaye tamit euh, di ziare ki nga xam ne mooy yaa xadiloo di yaare képp koo xam ne rek yaa ngi déglu seen émission tukki kat tey nag ñu fas yéene waxtaanee xam ngeen ne tey niñ koy waxee ñu ci bëri ci jigéen ñi seen i kër da leen di indi fii bitim réew ba pare eh, nekkaat ñoo xam ne dañ leen di xaw a teg bët wala ñu leen di sonal. Ah. te dafa xat soxna Fatima Sahra mi nag xam na ci lu bëree bëree bëree bëree bëri. ndax nekk na nit koo xam ne dafay dimbali ñi nga xam ne si ne ñoom ñooy eh, eh, ñii di faatu faatu yi comme ni ma koy waxee. kon yaakaar naa euh, tey képp ku bëgg a wootee mën ngaa def 88 628 13 37. xam naa su ko defee tamit Baye Diouf euh, nga jël ko Moustapha moom it dana bokk ci émission bi ak ki nga xam ne euh, moom moo di Sidi Lamine Jaxate ak képp koo xam ne rek bëgg ngaa participer ci émission bi ñu ci li nga xam ne si ne moom mooy seen émission Tiraanga tukkikat comme ni nga ko waxee nag Moustapha Coly soxna si comme ni ma ko waxee léegi dama koy wax dalal ak jàmm ndax wax dëgg yàlla. nekk na euh, ki nga xam ne euh, liggéey euh, bu am solo am solo la sumb su ko defee xam naa dama lay bàyyi rek nga dóor ko ay quelques questions rek man daal koy partager lien bi mu mën ko partager ñi nga xam ne ñoo ñuy déglu ci diaspora bi ñu mën a suivre seen émission Tiraanga Tukkikat awi ah jërëjëf kon mu ngi noonu Dame Coumba di nuyu itam bu baax mboolem ñi nga xam ne connecté wu nañu kon mu ngi noonu jafe-jafe yi nga xam ne moom la couple yi di dund lu ci bari nag tey incha allah danañ ci waxtaan ak euh, Fatima Zahra Dieng euh, ñëw ànd ci peut-être ay solution Euh, ñu def ci ay contribution ñi nga xam ne tam ñoo nekk ci ligne bi ñi nga xam ne ñooy déglu par exemple mën a woote itam ci 88 628 13 37 ngir ñu mën cee bokk parce que mbokki Louga ñoom itam ñoo ngi ñuy bàyyi xel bu baax a baax euh, waa Louga maa ngi leen di nuyu bu baax mbokki Ndakaaru mbokki Touba nga xam ne daanaka région yi nga xam ne moom la ñu lim nii euh, bëri na ci ay dëkk yoo xam ne vraiment ñoom ñoo ëpp ci ay way tukkikat di dem ay Italie Espagne et cetera kon Fatima Zahra day mel ni tey day mel ni tey liggéey bu am solo lañ nar a def. parce que gis nga tey gis nga même Sénégal démb rek lañ doon waxtaanee violence conjugale par exemple ci li nga xam ne ne dañu seetlu ni fan tam dafa xaw a mel ni tulleeg màlle mais tey bu ñu nee bu ñu nee bu ñu nee tey Fatima day day day former mais formation bi lan la exactement ñan ngeen viser ci seen formation. parce que maa ngi dégg nga wax formation jàngal jàppale yi développement personnel est-ce que mën nga ñëw tuuti ci ñan ngeen di viser ñan ñooy seen cible ci seen formation ñu ngeen di jàppale. waaw xam nga formation yi dafa am lu ko jublu. Mhm. ndax balaa euh, dara dama daan jàppale jigéen ñi ci ay thèmes yu ma daan def ci YouTube bi direct ci Facebook. waaw soxna Fatima su fekkee mën ngaa gën a jege sa micro. waaw waaw waaw. Mhm. dama nekkoon ci yor sama ay groupe whatsapp hmm. nekk ci youtube bi nekk tamit ci li nga xamante ni mooy euh, euh, facebook bi di def ay live direct di hmm. indi ay thème di ko aborder soxna yi di jàmbat di jàmbat seen néegu sëy metti gi mu metti hmm. di jàmbat tamit réew mi nekkin bu metti bi ñu fi nekk jàmbat yi bëri na bëri boo xamante ni dama gis ni ñàkk yar ñàkk éducation ak ñàkk comprendre doomu aadama entre góor ak jigéen ndax hmm. góor dafa am psychologie jigéen am psychologie am ñoom ñaar ni ñuy fonctionner bokkul léegi buñ ci doolee yariñ yi bokkuñu ñu daje ci beneen réew ak yeneen réalité daanaka foofu moom ay dégâts rek lay am hmm. ci laa xalaat solution parce que dama ne il faut que solution am te hmm. solution bi du nga ñëw jox nit ki benn conseil rek mu dem parce que après day dellu si waat am na ay soxna yoo xam ni da lu ëpp fukki at dañuy ñëw di ñëw di ñëw di ñëw te affaire yi du réglé ma ne léegi nan laa mën a def pour nit ki ma former ko ba nga xam ne dina am ay clé maanaam ay outils am ay jumtuwaay ay jukko mhm. yoo xam ni nit boo mën a dajal ci àddina di nga mën a jëflanteeg moom te du la lor te doo ko lor mhm. donc ci laa ubbi li nga xamante ne mooy sama première euh, euh, session fi mu nekk ñu ngi ci troisième saison mhm. ngir euh, former jigéen yi ngir jàngal leen déjà balaa dara di xew ñoom ñooy mhm. kan ndax dafa am formation diine. Mhm. parce que suñu dugg nag diine moo ko régir. bu ñu yàlla wàccee ci kaw suuf ñu xam lan moo ñu fi indi balaa dara di xew. Mhm. ndax damay faral di wax ne ku la ne jox ay outils ne la demal mission. ne la demal par exemple Touba wala dakaar nga dem def defi mission. léegi mission bi lan laay def lan laa fay ut. damay jaay wala damay jënd wala damay lan laa fa war a def. te la plupart jigéen ñi dañu sàggane suñu diine surtout bu ñu ñëwee Europe. Mhm. dañuy topp xumbaay yi ak mumbaay yi ba fàtte ni sëy diine mooy li ci jiitu. dëgg la diine mooy lii dëggal ay doomi aadama ñu mën a muñ mën a surmonter lépp li nga xam ni day ñëw rek dañ ci seet yàlla tekki suñu ay bànneex bakkan teg ko fële. donc ci loolu ci laa gis ni bu weesoo li nga xamante ni mooy fondement base diine ndax diine li may wax encore fois du rek jàng aaya yi wala xarit yi di julli di woor du rek loolu mhm. mais diine conception la boo xamante ni éducation dañ koy dund waaw waaw éducation dañ koy sentir <laughs> mais mais Fatima Fatima mhm. eh, yaa ngi nekk ci déjà xam naa Moustapha su fekkee ne mën nga maa làmbal Baye Diouf ak euh, sëñ Sidi waaw kon gannaaw gannaaw bu ñu jëlee soxna Fatima ci am na beneen whatsapp boo xam ne partagé mhm. naa la ci lien rajo bi pour nga mën koo kii xam naa bi ma la doon envoyé waaw bu ko defee nga continuer kon kon dañuy jëm euh, def tuuti pose parce que dañuy nodd bu ñu joxee nodd bi ba noppi ñu dellu si waat mm. ok léegi ci kanam ok amul. voilà mu ngi noonu nodd bi daanu na kon di jaajëfal mboolem ñi nga xam ne rek ñoo nekkoon ci euh, teewlu bi. ñu wéyal émission bi teranga tukkikat yi nongali Moustapha Koli ci kàddu gi jamono ji eh, ñuy ànd ak Dame Kumba ak eh, tey soxna Fatima Zahra Dieng nekk foofu ci Italie di liggéey liggéey bu am solo jëmale ko ci développement personnel di jàppale surtout jigéen ñi elle est partie d'un constat ni jigéen ñi dafa bëri lu ñuy jàmbat ci yu côté yu jëm même noonu eh, ba mu jël ci moom itam ay matuwaay di ci waxtaan ak ñoom di ci former liggéey bu am solo la tey émission bi day ala dawme parce que tey wàllu sëy wala wala couple di ci waxtaan dafa doon loo xam ne euh, sookal la base la ci lépp euh, te moo mën a euh, jëmmal nit ci lu bari dimbali ko ci wàllu liggéeyam waaye tamit dundam àddinaam lu ci bari kon bu fekkee Zahra yaa ngi ci ligne bi Aïcha waaw maa ngi ci ligne voilà kon. ñu bàyyi la nga àggali fa nga toll woon juste yaa ngi doon wax ci wàllu diine diine lu mu doon dëgg-dëgg lu mu mën a apporter nit ki wala. waaw donc euh, dañuy wax ni. Mhm. Euh, ñu wax développement personnel te nit ki amul base. Mhm. ndax doomu aadama il faut que mu am lu mu gëm. Mhm. ndax nit bu àndaal bu amul gëm-gëm bu amul pas-pas bu dëgër. il faut que mu dem uti leneen lu mu bëgg ndax tey am na ñi nga xam ne. dañuy am dépendance ci xaalis ñi am dépendance ci jigéen ñi am dépendance ci alcool wala ci drogue parce que loolu il faut que ñu am ci lu ñu sukkandiku pour dëgër. te dëgër dëgër boobu. xol bu dëgërul xolu jullit mhm. day am faiblesse te faiblesse moo mën a yóbbu nit ci ay jukko yu ñaaw parce que nit ki bu mënul mu mer mhm. mënul muñ provoqué wala mënul muñ ko wax loo xam ni daf ko naqari ndax moom image am mu ko régir juste ci loo xamante ni mbiri àddina la ndax tey sa image boo ko defaree ci sa diggante ak sa borom nga xam ne yàlla daf la jox valeur yàlla dafa am fu la teg te dafa am lu muy xaar si yow kon yow dinga nga conscient nga xam ni responsable nga. Mhm. même boo amul jàpp sax yow si jëm bopp tu es responsable de ta propre personne. Mhm. kon bi déjà responsabilité la kon war nga moytu lépp loo xam ne daf lay jural loraange physique wala loraange xel wala loraange relationnel ci ñi ngay nekk. ñuy say say xarit du xaj. comme mhm. nit ci loolu préparé wu ndax nit ki balaa dugg ci say normalement ci la war a préparé wu. mais malheureusement amuñu boobu yar donc une fois nit ki dugg ci sëy ba pare commencé jànkonteel ak ay problème ñun ci lañu créer suñu formation indi li nga xam ne mooy base yu diine mhm. indi tamit li nga xam ne mooy base yu jukko yi ndax li ñuy def mooy dañuy def dañuy dem chercher xool jukko yi lu tax mu nekk ci nit bi ndax li may faral di wax mooy yàlla bu ñuy bind wàccewul kenn ci ñun ak soxor wala iñaan wala xool bu bon wala Euh, ay jukko yoo xamante ni jukko euh, jukkoy safaanoo la yàlla wàcceew ko ak ñun mhm. yàlla mhm. ñu wàccee ñu sedd wecc mhm. dara topp ñu léegi environnement bi wala say waajur walla fa ngay jàngee walla fa ngay fréquenté ñoo lay def li nga doon ndax yont bi saa sallam bu waxee ni xale jusqu'à l'âge de sept ans aaju ñu koy force ci julli mais nañ koy soññ ci muy julli mais à partir sept ans ci la xale bi raison wam di mag ci la commencé raisonner xale bu nekkee de zéro jusqu'à sept ans day absorbé comme comme disque dur boo xam ne ñu ngi koy enregistré. day enregistré rek. lépp luy dugg ci moom mu ngi enregistré day observer ay waajuram observer environnement bi lépp luñ koy wax moom loolu sax mun na ci bañ a bàyyi xel mais li muy gis moom lay enregistré. une fois xale bi am 10 ans mu ngi commencé dugg adolescence donc raison wam mu ngi commencé di opposé wu ak bu waajuram. parce que sama waajur lii la may tere kon lu tax mu koy def. lii lii sama waajur nee na daf ko bëgg kon lu tax du ko def nee na lii moo baax pour day def le contraire xale bi day commencé may incohérence ci bopp bi. kon dëgërul base bi dëgërul du kole xale bi du topp du dégg. Mhm. donc bu passé nga gis ni mu commencé di génne ay jikko di mbëkkanteeg ay waajuram parce que li nga xam ni moom lañ ci waroon def amul repère amul image ndax xale buñ ko yaree par exemple ci violence mu màgg ci violence jimmi ci violence xale boobu dóor la xas ak xaste parce que loolu la gis gisul leneen luy contraire loolu xale boobu bu màggee a joxe mhm. parce que loolu enregistré depuis mu nekk xale même bu ñu def lu baax day am sensation de rëy day mel ni day am lu koy bloqué day am gen mhm. day am loo xam ne blocage da danaan bëgg naa mais mënuma je n'arrive pas. Mhm. Mhm. même bu bëgg douceur du ko mën day mel day am lu koy bloqué par contre xale bi ñu yar ci douceur ak affection yar ko ci kersa yar ko ci muñ ak tolérance. xale boobu bu gisee violence da koy traumatise bu fekkee sax fu ñuy dóoree moroom xale moom àddunaam tukki na. Mm-hmm. parce que xamu ko xale bi ñuy dóor di ko di ko toroxal di ko wax lu bon xale boobu day am fit. koy mm-hmm. teel a ñame. Mm-hmm. donc nekk na xale bi nga xam ne dara du ko freiné parce que defuñu ci moom mu ragal yàlla di moytu yàlla mais dañ def ci moom mu ragal yàlla. so so soxna Fatima. soxna Fatima. comme yow yaa ngi bitim réew yaa ngi jànkoonteeg euh, da dangay gis xale yi nekk fii juddoo fi euh, hmm. yow mi nga xam ne yéen a bokkoo benn réew suñ la tasee suñ tasee yow ndax o école bi ñu nekk dañuy mel ne ku la xaw a dañuy sentir ku la xaw a xeet daal lan mooy waral loolu tamit comme yow yaa ngi bitim réew di di dund loolu parce que ñoom li ñuy parce que souvent ñoo tubaab yi ñooy nekk ndax lu mel noonu yaa ngi leen ci yaa ngi ci yee seen parents yi ak seen langue bi ñu di ko wax ak yooyu parce que da gis ne la plupart xare yi juddoo fi dañuy xaw a xeebaate quoi yow mi nga xam ne seen doomu réew nga. waaw am na fi du ma généraliser nag mais am na ci ñenn ñi nga xam ni dañu raté seen éducation doom. ndax. Mhm. Euh, mhm. am na ay xale yoo sama kanam la ñu ci bëri ñu am 18 ans ñi ngi am 17 pourtant macha allah buñ dajee yow dañ lay nuyu jàmm santeeg yow taxaw jox la jox. Mhm. am na ci ñoo xam ne la romee sax dañ lay daw dañ mel ni gisuñu mhm. bi ndax sa doom tey boo ko xamalee ni yow sénégalais nga xam nga nit ki nit il faut que mu li mu doon identité yàlla suñu borom defaluñ ko pour rien du tout waaye daf ñu defal identité ngir ñu xamante waaye ñu bëggante ngir ñu respectante tamit ñu xam ne benn xeet gënul moromam ci dara wala ci dëkk wala ci alal <laughs> waaye ñu gënante ci gëm yàlla ak ci jukkuy rafet <laughs> tey boo ñëwee ci dëkku jàmbur sa doom bu fekkente ni du la dégg ngay làq sa làq ci sa biir kër dangay làq làq tubaab yi boo toggee nee nga doo doo lal nàpp ci suuf ku nekk jël loxo dank waaye dangay teg ci kaw taabal ku nekk jël fourchette <laughs> yaa ngi jàngal xale bi que ni tey bu fekkente ni mu ngi dajeeg euh, moroomu sénégalais wala boog yow nga ànd ak moom ne ko nuyul sa tante diw waaye danga ko naan nuyul diw xale bi du hmm. xam tante du xam tonton du xam papa du xam euh, yaay lu muy xam rek mooy jaar ci turu nit xamal ko ni depuis bas âge hmm. ñun du ñu ay tubaab xale bi il faut que mu conscient que ni parce que fii bari na xale yoo xam ne seen bopp bi seen cerveau bi yëpp tubaab la da der bi rek a ñuul hmm. donc xale boobu day am complexe ci lu mu doon parce que dafa amul identité dafa am li ñuy wax perte de l'identité mm-hmm. <laughs> te nit bu perte identité en certain moment du xam sa fu mu bokk parce que tubaab bi mu bëggee intégrer boppam en certain moment da koy rejeter mm-hmm. loolu day indi souffrance indi nit ki di chercher identité moo waral ñu commencé nga gis ñii di wàcce seen tuba yi ñii di tent seen bopp yi ñii di bët seen nopp yi parce que mu ngi chercher boppam il se cherche mm-hmm. parce que lu tax mooy ñu ko forger identité dëpp mu nekk xale xam ni yow waajur bi référence nga ci sa doom nee naa waajur yi nga xam ni ñoo gën a dàkk yuuxu yar lu ne ñu dóor seen ay doom en général dañuy raté parce que yar bi amul éthique amul jëf wax rek la te wax dafa mhm. dafa soxla référence mhm. dafa soxla gis say say doom bu heure julli jotee nañu julli bu fajar jotee nee naa yërëmuñu yee xale yi fajar ñu jàng waaye yërëm nañ leen yee ñu julli fajar loolu mu musiba la <coughs> donc xale bi il faut que mu instauré ci boppam kenn jullit la aljuma bu papam di dem ñu baale ko juma bu fekkente ni organisé wu ngeen ci yenn dëkk yi nekk ci Italie chaque samedi ak dimanche mu dem jàng alxuraan yow boo jàngee nga di ko jàngal sa kër man macha allah am na ay jaboot ci base yooyu laa leen yar tey ñu ngi ku mag ki léegi mu ñeneen ku mujj ki rek am na 11 ans waaye du ma lamentaare wu sama yaru njaboot. parce que hmm. dafa am man hmm. lu ma nangu dama ne man du ma nangu ne dama yar waa mbedd mi yàqal ma loolu dama ko mus a bañ. Hmm. parce que xam du au fond du dëgg excuse la ñuy ut. te lii dëgg mooy yar bu amee base waa mbedd mi duñ la yàqal ndax man su ma xoolee ci sama bopp ba may jógee Sénégal vingt ans laa am. bu ma fi ñëwee sëy naa fi yàlla dogal yàlla weddi sëy boobu. est tax na man hmm. man yi dafa war a bon parce que waa mbedd mi dañ ma war a yàq. non parce que hmm. lu tax mooy dañu def ci man base boo xam ne xam naa ni bu ma kenn gisul yàlla bu may gis. Hmm. xam naa ni bu ma kenn gisul am na loo xam ni ruus naa muy egg sama ay noppi waajur ruus naa ko sax sama diggante sama ko. et puis ba nga fay jógee am na luñ la naabe woon ko waaw mooy mooy base bi mooy éducation de base bi. ndax li mooy waral même boo gisul kenn am na loo xam ne yow sa juróom-ñaari xel du ko xalaat. léegi ñun bu ñu nekkee Europe ñu ne suñu doom yi ñu fi yaroo ndax tubaab yi dañu leen di yàq mooy loolu wax ju yàqu la man loolu gëw ma ko. c'est parce que dañ koy parce que vingt ans mhm. daanaka. Mhm. jeex na samay doom fii lañu ñu juddoo fii la ñu yaroo vacances moo leen di. même yow même yow yow parce que vingt ans nga fi ñëwee. Ah, vingt ans booy xool éducation. passé gul ci yow mu ngi noonu. Mhm. man fii laa puudar fii laa commencé di jàng sama diine fii laa commencé di mokkal alxuraan fii laa commencé di pratiquer sama diine ndax ñi ma xamoon Sénégal am na nuñ ma xamee woon ñi ma xam fii am na nuñ ma xamee. Mhm. kon changement mën na nekk ci boo ko bëggee. dëgg la lu wér. ku nekk yow yaay li ñuy wax ku nekk boo deewee dooy baal jëfu kenn sa jëfu bopp ngay yóbbu. <laughs> bu ñu jógee ci loolu. dama mhm. bëgg ñu ñu xuus ci benn par benn. Mhm. li ma bëgg ñu dugg ci carrément parce que kër yi ñi ngi toj bitim réew. li koy toj mooy ci diggante couple yi quoi. problème yi da ci am nangam nangam te Europe kër yi dafa xat. dëgg lool. gis nga ci semaine bi passé ñu ngi fi doon waxtaane baaw mooy sénégalais bi fi rayoon euh, soxnaam que ñu tëj ko trent ans. day mm. du ñu wàññi sax peine bi quoi. ak euh, depuis 2018 la woon ak li mu jotoon a tëdd ak yooyu. nga mm. gis problème yi nga xam ne si ne dafay am ci biir sëy yi te it euh, souvent chaque jour sama question dama bëgg bu ko daw quoi benn yoon. da ngay gis ku góor ki souvent day wax ne sama jabar dama ko fi indi ñu influencé ko moo tax mënatuma ko wax lu dugg ci bopp bi. Mm-hmm. lan mooy lan mooy problème bi quoi lan mooy problème parce que man jàpp naa ne jëkkër moo war doon sa waaye tamit jabar waroo koo yor ba pare def ko mbaam quoi. wa illaa nga ne waxumaa nit rek xëy na sax nit ki moom su su fekkee ne yaay kilifaam soo neexawut ak nit même bu neexawut ak kookaat war naa wut aw dig teg ci diggante ba quoi mais mais lan lañ mën a def ba saafara ndax. jàpp naa ne. am na ci ay cas yu bëri yoo ci gis. xam nga euh, li nga xam ne mooy xew ci kër yi ay processus la xam nga lan mooy processus. mooy day hmm. commencé benn escalier ñaari escalier ñetti escalier ba ñu egg ci dóor ba egg ci rey. processus bi moom laa doon commencé ci yar bi ci xale. Hmm. tey nit ki nga xam ne yar bi dafa rate parce que ñii dóor seen jabar yi dafa am ñaari façon dafa am ki nga xam ni moom daanaka boo ko gisee doo ko naw xam nga ni kii moom ku ko may jigéen mu dóor ko xam nga leer na nit am ki nga xam ne nag dafa tol mbubbu góor bu am euh, yar am teggin am diine fekk na au fond amul jukkoy rafet ndax yéen sa sam dafa ne woon nañu tànn euh, jëkkër ci ñaari forme ci ñaari principe diine ak mm-hmm. jukk di nga gis di julli di woor fekk jukko bi dafa rate ndax gis na nit boo bàyyiwul sa bopp xel rek daanaka dañuy wax ni pilote automatique ngay demee la mooy pilote automatique mooy koo xam ni da ngay te doo ko amoo contrôle ci sa bopp amoo maîtrise sa bakkan chaque mhm, mhm, mhm, say say bànneex moom ngay nourrir te da ngay gis ni nit ki nga xam ne ragalul yàlla mais waa mbedd mi lay ragal kooku bu tëjee buntu këram lu ko neex lay def ci këram ndax ñun jigéen ñi sutu baatu sutura moo ñu rey ndax am na li nga xam ne ruus nettali waa mbedd mi ñu di ko dégg ndax man ba ma dalee jëflanteek jigéen ñi ba tey mhm. baatu influence daw sa responsabilité la xam nga euh, sëñ bi mhm. Mhm. dama li may wax sànq ci xale yi moom laay waxaat ci jëkkër yi tey sama doom su ma ko indee ci dëkk bi ma di ko yar mu am fitu jël numéro di woo assistance sociale di ma booleeg moom mooy am na lu ma rate man dama koy reconnaître xam ne man ma responsable sama doom su ma koy yar mu génn di def lenn naka sudul noonu ci mbedd mi ba ba ba ma ne këf nañ ko mooy man am na lu ma rate encore une fois il faut que ma assumer ni man maa rate man il faut que ma mhm. defaraat li nga xam ne moom laa rate sa jabar ba nga koy takk mhm. kenn fekkewul ba koy indi ci réew mi kenn fekkewul mhm. yàgg moom bu guddi jotee yéen teg seen buntu nekk kenn du fekke kon kooku noppam boo ko yëyul keneen di ko yëy ba di ca def ay idéologie ba mu lay rëcc mooy yow rate nga parce que tamit dañu waxante dëgg. est-ce que est-ce que du bëgg njaboot mooy waral leen maa ngi ñëw maa ngi pour wax la excuse yooyu laa bëgg a daaj benn par benn pour wax la ni fondewul teguwul ci dara lu dëgër. Mm-hmm. Mm. ndax bëri na fii ñoo xam ne bi ñu leen di dañoo opposé woo ak seen ay yaay ak seen dem sëy. Mm-hmm. nga bitim réew nga gis ni déggalatu la kon mooy wóolootu la kon mooy doo nit ku ñu war a déggal parce que dafa am déggal dafa am limite ndax ni ma naan yàlla suñu borom du jox kenn li nga xam ne mooy euh, kilifteef absolu. dafa am mhm. principe am fu mu commencé am fu mu yem léegi nag bu ñu duggee ci cadre violence conjugale mhm. Mhm. dafa li nga xam ne mooy installé mooy góor ñi mentalité bi ñu am ci sëy mooy rateloo sëy yu bëri jigéen ñi tamit la même chose ku ci nekk dinaa ñëw ci yow ñu jiite ci góor bi nga xam ne kilifa bi góor day indi soxnaam ci dëkk bi ni soxna sii maa ko moom lu ma bëgg lay def lu ma ko tere lay bàyyi lu ma wax lay wax su ma xuloog nii dafa war a wàlli bañe su ma ko nee toogal donc da maa ngi ñëw parce que dëgg la l'islam dafa ne la sa jëkkër mhm. mais que góor boobu sóoraale na sama jabar bii nit la comme man dafa am xel mhm. am maatub maa ko moom bi <laughs> xotiga ko maa ko moom bi maa ko moom possession la xam nga dafa am possédé xam nga nit mën nga bëgg dara mais possédé woo ko nga bàyyi ko mu am libre liberté di wax opinion am di wax ni mhm. ah sa lii de baaxul est-ce que duñ ko defee nii nga xool sax xool xelam bu baaxee nga def waaye nit ki bu jàppee ni moo la moom moom ay say idéologie yow ça n'existe plus mooy yow li ngay xalaat amul sens amul benn fondement kenn waru ko considérer ndeysaan <laughs> dëgg la yow yow jigéen bi yow doo yow sa jëkkër doo xam li muy fayeeku buy génn dala naan maa ngi ñëw bu amee problème da ngay dégg mu nekk ci téléphone bi génn ci biti wax wax ba doyal ñëw toog yow xamaloo ko dara da ngay xëy xëy nit ki mën na am problème boo xam ne mën na bàbbeeku ci kaw couple bi yow jigéen bu subir day am yaay subir te moom mu ngi ba donc euh, Fatima. Mhm. Euh, juste rek ma këf la tuuti may jégalu bu baax a baax ma nuyu itam Serigne Sidi Lamine Diakhaté moom itam. ak Sidi Lamine Diakhaté borom Maroc. Mm, borom Maroc waaw ñu ngi leen di ziar euh, mm. sëñ Moustapha. waaw. waaw ñu ngi leen di ziar di ziar aussi sëñ Dame Koumba Gueye. bi mhm. nga xam ne c'est grand journaliste de la diaspora. maa maa ngi lay ziar bu baax a baax. man laay di leen wax mes meilleurs vœux bonne et heureuse merci pareillement waaw wax dëgg yàlla suñu suñu rajo bi nekk number one de la diaspora ndeysaan euh, ok ñu ngi ci liggéey bi ko dégg macha allah hmm. ndax yéen a ngi liggéey liggéey bu rafet bu yoo xam ne ni diaspora bi yëpp ñu ngi koy rafetlu hmm. allah kon ndeysaan voilà di nuyu aussi également soxna Fatima Zahara Dieng defe naa noonu la. noonu la waaw non. voilà di ko nuyu di ko sant bu baax a baax a baax. alhamdulilah ah, di nuyu aussi également suñu mbokk auditeurs yëpp. di leen wax ñoom ñëpp aussi bonne et heureuse année. 2022. Mm-hmm. lépp loo xam ne ñaaw la woon rek ci année bi passé ah, yàlla na rafet ci année bi nga xam ne moom la ñu jëm. sëñ Sidi. waaw. waaw soxna si euh, fële la nekk Italie la nekk. Euh, uh-huh. soxna si. Euh, sëñ Sidi moom mooy représenté sénégalais yi nekk Maroc. Mm-hmm. Euh, dafa def liggéey bu am solo nag. macha allah foofu ca diwaanu Maroc. Euh, yaakaar naa ñi ko xamul ci Sénégal ñu mm-hmm. bëri ñi ngi koy dégg te it wala ñu xam ko. vraiment. Mm-hmm. macha allah dama lay nga dox. voilà kon mu ngi noonu jërëjëf euh, sëñ Sidi di wax ni ni ci tey wax lu wàllu couple la ñuy waxtaan euh, mu doon loo xam ne mbirum euh, kër la tey nag Zahra tey mu ngi ñuy defal benn cours magistral boo xam ne wax dëgg yàlla fu mu tàmbalee sax mooy fi nga xam ne mooy soubassement bi mooy xale yi yar bi ba mu ngi dugg ci léegi ci couple yi exactement maa ngi sàcc sànq dugg YouTube pour xool mais maa ngi gis sa yenn sa yenn vidéo Ah, ah, Fatima waaw waaw euh, gis naa fi nga xam ne yaa ngi wax la séduction man xam naa di nga ñëw ci la séduction nag euh, ci man boobu moom intéressé na ma waaw boobu moom. dinañ soxna si kay dama koy da maanaam li ma koy wax mooy. dañuy chaque dimanche rek nañu may benn kii bu ndaw. def benn clinique bu ndaw rek. ñu jàllale ko waaw waaw man dinañ dinañ ci bàyyi xel. waaw soxna Fatimata Zahara. Ah. sëñ Sidi. waaw sëñ Sidi. waaw maanaam xam nga man lu ma tax a xam nga lu ma tax a kontaan. damaa xam ne yow ci Maroc li nga li nga ñu nar a indil ak moom li ñu nar a indil maanaam ñaar ñi ñu ñi ma boole quoi ñaar ñi ñu boole. tey kuy déglu ku ne di nga kontaan. waaw wér te Moustapha. te Maroc a ngi toj dégg naa moom itam ci couple. parce que waaw bi ma déggee sëñ bi ma gisee sëñ sii di dugg rek dama ne dama kontaan. parce que dama xam ne fu soxna faatima fu si yow foo daanee rek soxna faatima dina fa dina fa indi waat leneen loo xam ne si ne. moom la sénégal yi bëgg a dégg parce que man souvent dañ may woo Italie Maroc euh, Espagne fii France ci ay problèmes yoo xam ne si ne man daf may daf may jaaxal ko ci diggante ay problème conjugal da gis koo xam ne danaan la voilà lii moom ma jàpp mais bëgguma ko yóbbu test bëggumaa def nii nangam nangam <laughs> dugg fii sama borom kër andi na ma fii may liggéey mu teg ci bët wala joreel na ma nangam ci xaalis nangam nangam ay action yoo xam ne si yow yow si jëmmi bopp yaay mujj di leen régler pour bañ affaire bi dem ci kaw daal. Mm-hmm. exactement léegi nag. waaw waaw. Mm-hmm. léegi kon. Euh, ku koy bëgg rek jël bi paane ko yóbbu ko ci rajo bi. waaw kon yéen ñaar tey su ngeen tasee rek. Mm-hmm. tey lépp war naa mën a leer daal. voilà léegi léegi Zahra moom ci boppam comme fi mu toll woon euh, dañuy dugal ay questions en même temps bu fekkee am ngeen ko euh, Zahra man li ma koy laaj mooy yaa ngi wax dëgg-dëgg problème yi nga xam ne nag souvent dañ koy jànkoonteel ci couple yi mais est-ce que xam nga tamit communication. muy lépp te gis naa day mel ni ci loolu nga doon ñëw parce que problème wu waxtaan day am souvent ci couple ak euh, nit dañuy dem yëy noppam euh, mu am beneen idéologie te fekk jëkkër ji moo ko waroon a moo ko waroon a par exemple ko waroon accueillir moo ko waroon a dalal. Euh, defal ko loolu. mooy gu bu ñu indee seen soxna yi ñoom ñooy raté baas bi. Mm-hmm. base bi mooy la mooy nga nga dëggu. nga transparent. ba pare nga doy sa soxna mbokk maanaam mbokk jigéen dafa soxla mbokk. jigéen dafa soxla ku koy déglu ak ku koy dégg ndax yàlla moo bindee jigéen nature am mu soxla échange tey nit ñi dañ fi indi seen soxna par exemple dëkk bu mel ni Italie laa mën a wax déggul làkk waaw moom mën na xëy soo jot gisul kenn doo ko nangu mu instruite maanaam mu dem jàngi pour dégg làkk bi ndax àdduna dafa gudd tànk doo nangu intégré ko doo nangu tamit danga naan dama la fi indi pour nga toog indiwuma la fi pour nga liggéey indiwuma la fi pour nga nangam baax na mais déggoo leen ci waaye même boo fi indiwul pour mu liggéey fexeel mu intégré ndax gis nga nit bu intégré wul day mel ni ku ñu tëj ci kaso ah. te gis nga ruux li nañ yàlla dafa bind ruux pour mu libre doomu aadama liberté du question nit ki def lu ko neex déedéet mais nit ki gis ni yëg sa jëkkër yëg na la sa jëkkër comprendre na la mm-hmm. sa jëkkër tëju la ci kër bu xëyee wàcc bu ñëwee nga toggal ko nga yàqal ko nga toog bu ñëwee sélectionné sénégalais yi mu yi nga xam ne moom moo amoon ak ñoom problème mu ne yow bul wax ak ñoom d'accord bul sikk ak ñoom xaritoo mais maslaxa dafa baax ci dëkk ndax tey fii ku fi dee bu la sénégalais ketelul sa koor du dem Sénégal nañu waxante dëgg. Mm-hmm. mais mais soxna Fatima. Mm-hmm. foofu nag léeg-léeg ma am lu ma fi wax quoi mais su fekkee ne maslaha baax na te it mu leer ne sa jëkkër lim la expliqué lim la expliqué carrément ñee ci jëmmi boppam ñoo ko bëgg te gisee par exemple quoi laay wax. comprendre naa ñoo bëgg a xaritoo xam nga nit ki munoo xaritoo ak ñëpp ñëpp munuñu la bëgg munoo bëgg man su ma ne damaa bëgg ñëpp dama wax mhm. su ma ne damay déggoo ñëpp tamit dama wax lu ma neex mais maslaxa ci ay dëkkandoo dafa am solo bañ a mhm. jàppal animosité ndax man dama ne nekk dund bañ doon dund Sénégal bu ñu xasee ba ñëw Europe mënatul nekk mën nañ di gisante de temps en temps di daje ci xew yi di jàmmasante mhm. te xew yi sax léeg-léeg la waaw jigéen ñi lu ñu bëgg ci yenn ci jigéen ñi parce que gis naa fi bëgg di xëy ma dem yendu ji diw wala ma dem def lii wala ma dem bokk tuur parce que mentalité dafa war a évoluer mooy li may fexee mhm. ci jigéen ñi fii mooy ñu xam ni tey couple équipe la yàgg sa jëkkër da war a jàppalante mhm. jàppalante bi des fois ni muy rate mooy da ngay indi sa soxna ci dëkk bi xam nga lu tax mhm. jigéen ñi di fippu ñu naan dañu déglu keneen déedéet man damay xam nga dafa am loo man dama ko dund ba pare di loolu danañ ci ñëw ci lu bëree bëri danañ ci ñëw. la expliqué que ni jigéen dafay ñëw ah, amaana da nga ko fekkoon Sénégal muy jàng wala muy liggéey mu ñëw ba fii nga fas yéene koo dëj mu nangu dëj bi déglu mu baax mu nangu ko daa dina amul problème naa toog sëy sama sëy bu soxlaa 5 euro crédit wooy ay waajur nga ne ko mënul nekk bu soxlaa diw nga ne ko mënul nekk moom daal lu mu soxla daanaka balaa moo am 5 euro wala 1 euro ci yow. dafay day jàmbat jàmbat ñaana ñaana ñaan neexala neexala neexal ba daanaka da koy faf bàyyi. Mhm. bu fekkente ni yow kese amul problème waaye bu doom yi commencé juddu say doom di jàngi tubaab yi di leen laaj cotiser leen lii cotiser leen lee war a am dàll nga koy yónnee ci ngay yebal ndaw si ci karikaas yi di ko yebal ci koo xam ne amaana Sénégal musul tàllal loxo ñaan xam nga nit ku nekk li nga yaroo dafa am solo. Mhm. nga gis xam xaatul bindal jabaram yëre jaget benn jaget ngay gis jigéen bi di ko sol hiver bi yëpp. xale yi duñu am yëre duñu yàlla dañuy dem ci caricas bi ñu leen di jox du n'importe quoi tubaab yi yeb nañ ñu. parce que ñun ñoo respecté wul suñu bopp nooy liggéeyee. Mhm. nga mën a gérer sa xaalis. parce que gis nga xëy na démb du ma woon comprendre mais tey bi ma nekkee une femme indépendante bu yor sama famille yor sama njaboot di fay sama ndox di fay sama courant man dama ne lu tax góor ñi mënuñ xamante fii mhm. kon nan ngay nekk sa jabar ci kër te yow mënoo ci génne économiquement parlant fooy def sa xaalis mhm. kon bi di ko jàmbat di ko jàmbat di ko jàmbat ba ndaw si du la sañ a ñaan ndax yow fu ñu la fekk yaa ngi jàmbat mu am nag problème xaalis ndax jigéen ñi góor ñi bu ñu la fi indee li ma door sànq possession bi dañuy jàpp ni ñoo la moom mooy tey ndaw si bu ëmbee am doom fii am na la ñuy ok bala ngay foofu bala ngay ñëw foofu waxtu bi ñu ñu dab ah. si si di li nga jot a dégg sëñ Sidi Lamine li nga jot a dégg soxna si. Oh. Euh, andi ko fi yaakaar naa tax na sax nga comprendre ci biir émission bi li ko tax a léegi soxla nañ sa xalaat boobu nga ko lu tuuti. sëñ Dame. Mm-hmm. Mm-hmm. waaw xam naa ne waaw ñu lay dégg bu baax. soxna Fatimata Zahara dafa mel ni lu xaw a jàng tuuti man dama foogoon ne. ma voilà voilà ok loolu laa bëggoon nag. mu débat bi xaw a équilibré mu équilibré voilà. nga parce que euh, am naa ne ni muy défendre jigéen ñi moom <laughs> ah euh, dañu moom man euh, vraiment man je suis défenseur des femmes mais tey moom jàng ba ma yëg ne moom muy jàng jàng na mais effectivement am nga fan bokkul mm-hmm. diaspora bitim réew sëyu mm-hmm. bitim réew ak sëyu biir réew mi bokkul mm-hmm. ndax li leen différence dafa bëri xam nga bu dee si biir réew mi parents yaa ngi fii mbokk yeeg yëpp bu daree xawee dem bay bëgg dëng rek ñu ñëw taxaw defaraat mu daal di newaat mais quant à bitim réew ñoom ñaar rek lay doon. Mhm. donc loolu moo waral xam nga couple dafa am loo xam ne dafa jiitu si couple. moo tax euh, dafa am solo sànq dégg naa muy wax wàllu éducation. Mhm. looloo waral gis nga éducation islamique muy al tarbiya islamia dafa nekk am mhm. solo ci dund doomu adama gis nga lépp lu amul éducation rek yàqu na. base même jàng bi ngay jàngale éducation bu si laluwul rek day yàqu jàngale mm-hmm. boobu nit ki mën na jàng ba bëri xam-xam te du am yar mm-hmm. du am éducation sëñ sëñ Saliou daana ko wax donga yi daana leen wax ni nit soo ko jàngalee sëñ Sidi ndax mm-hmm. dañu xam ne ñaari aji dencante yi sëñ si ñoom dafa nekk loo xam ne dafa war a taxaw ngir société bi ma si dama allo allo sëñ Sidi allo ñu ngi dégg Mm-hmm. allo. Sidi Lamine. est ce que rëccul xam naa dina ñëwaat certainement dafa rëcc xam naa problème connexion ñu koy xaarandi mu ñëw euh, déjà Zahra dégg nga ñu ngi naan est ce que yow Django yaa ngi jàppale jigéen ñi euh, yow loolu tontu ci loolu d' abord. problème bi jigéen ñi la jigéen ñi la wala góor ñi la lan la exactement. man ci ñaari côté yëpp la. Mm-hmm. voilà day mel ni day mel ni day mel ni Sidi ñëw na Sidi ñëw na sax ñu ñu bàyyi ko mu développé fu mu toll woon waaw sëñ Sidi. dama ni ñëwaatagul ñëwaatagul. day mel ni dafa rëccaat waaw kon loolu la dafa rëccaat waaw ba léegi rek ñu dem. allo yi ciy soxna. Hmm, ñaari côté yëpp moo sooxe parce que côté góor ñi am na problème côté jigéen ñi am na problème. Hmm. mais côté hmm. góor. problème ndax góor ñi société patriarcale lañ yor mooy maanaam li jëm ci wàllu domination bi góor ñee ko yore ci diine ak ci euh, société ak ci yar ak ci psychologie en général ni ñuy xalaatee muy Europe muy Sénégal góor ñi mooy ñi nga xamante ni ñoo yor domination bi ci kilifteef ak ci économie hmm. te nag dañ naan ku yor sax sànqam xaw ma ku yor sax xaw ma lan <laughs> ku lay ku lay yor moom daanaka même bu fekkente ni góor nga sax tu vas te soumettre ndax da ngay gis tey góor liggéeyul jabaram yor ko mais du sañ a kaas yu bëri mhm. donc euh, économie dafa am puissance ci couple ba tax na dañu gis ni góor ñu ci bëri bu seen soxnay liggéeyul wallahi lazim duñ la respecté gis nga li tax jigéen ñi di fipp di dem di liggéey pourtant da ngeen a d'accordoon mu ne du liggéey mais jigéen bi day commencé de temps en temps mu ànd ak yow bu ñaanee dara sax eh mais dimbali ma yoruma lii yow amoo xel nangam sa yëfu senegal yooyu yaayam bu ko woowee téléphone ne ko dafa feebar ne serait-ce que 30 euros mënoo koo yóbbante sa goro. donc y a des yi nga xam ne góor jigéen ñi tamit am nañu fu ñuy ëppalee parce que jigéen ñi dañuy ñëw bëgg def seen poste jëkkër yi banque te dafa am li nga xam ne man duma ci d'accord ndax dama ne am na loo xam ne ku ko bëgg ku bëgg xaalis booy xewee danga koy ñàkk sa poste jëkkër du banque. ça sert pour ngeen dund pour ngeen am dund bu équilibré pas pour nga ci tibb di yóbbante Sénégal pour ñuy xew loolu man d'accord ma ci. <laughs> donc muy côté jigéen ñi war nañu xam ni économiquement parlant sa jëkkër bii xëy di hmm. liggéeyi. am na ay charges yu ko war yoo xamante ni yow li nga ko war a jàppale mooy nu ngeen di amee seen kër defar seen futur Sénégal ba bu ngeen demee ba egg yenn âge yi mun mën a ñibbi bàyyi seen doom yi ñu am relais ngeen préparé wu depuis mu teel balaa ngeen di màgget. Mhm. léegi question de xaalis boobu di jur problème problème yan lay jur mooy. dama dégg nga ne euh, jigéen ñi dañuy def seen euh, borom euh, poosu borom kër yi banque. bankomat xam nga bankomat mooy lan gab ba nekk Sénégal boobu soxlaa dem génne <laughs> malheureusement parce que ci li ñu yaree tamit buñ lay par exemple dangay jàng au lieu sa yaay ne la ah yàlla na nga am say diplôme yu baax am sa liggéey bu baax. dañ la naan de yàlla nga am jëkkër ju baax boo am oto am kër. mën naa yow ak say waajur ngeen di rocc ci poos bi. <laughs> ci ay mentalité la yoo xam ni malheureusement dafa doy waar. te hmm. yow jik boo amul maturité. say waajur Sénégal bu ñu la woowee di la wax yenn yi yaa leen di war a teel a limité freiné leen xale yu jigéen yi ku fi ñëw say si li ma leen ñi kaf mooy li jëntil say waajur ku la ci yëgal xew ne ko demoo xew ndaw talatoo dematoo la ak kenn fii ngay dund boo amee nga def boo hmm. amul c'est obligé ndax gis nga nit ki boo koy ñaan chaque jour bu yàggee nga gis jukkoom nañu waxante dëgg yàlla rek ngay ñaan te du mer wér na xam muñ maanaam nga muñ muñ naxanteeg sa jëkkër le temps que nga xam ni boo ñëwee dafa li ñuy wax da euh, euh, li ñuy wax intégration début bi am na lépp du motandoo nga fexe sa hmm. jëkkër bu dee góor bu nga jàng bu dee góor bëgg lu baax na la dugal nga am voilà kon day mel ni sëñ Sidi ñëw na dëgg la dëgg la euh, ah, waroon ngaa fekkee fa muy wax mais mais nee na moom euh, léegi léegi du question jeng waaye nee na góor ñi danañuy def waaye jigéen ñi dañuy def euh, léegi nga ñëw foofu sëñ Sidi. waaw waaw sëñ sëñ Moustapha. Mm-hmm. voilà problème mu réseau la amoon tuuti sànq nii. dëgg la dëgg la. voilà damay wax ne rek problème mu couple dafa nekk mbir moo xam ne lu xóot la lu doy waar la. sensible waaw. voilà gis nga parce que aju ñaari dencante yi. Mhm. Euh, mhm. li tax mu xaw a doy waar. mooy lay judd si ñoom. dafa mhm. war a nit ko xam ne société bi da soxla famille bi da soxla même diine islam da koy soxla. donc exemplaire la war a doon. moo tax xale dina judd ñu ne nañu yar ak xale bi or yar ba mag ñi ñenn mag yi dañ naan yar ba c'est trop tard ñun lan moo tax. ca tànn ba yar bi fu ko woon mooy ci tànneef ba ba muy tànn yaayu mm-hmm. doomam. Mm-hmm. Mm-hmm. naam góor dina sikk jigéen ñi dina sikk. mais rek dañoo xam ne jigéen berceau la. gis nga euh, soxna Fatima li muy wax couple yi am jafe-jafe ci diaspora bi man xam naa ci dara ndax ñu bëri dañu ñëw sama bureau couple yi bëri dama koy régler. dëgg la. ñu bëree bëri bëri bëri. na. naam di nga xam fi point bi ne. mais souvent bu fekkee da bëgg a defar. Mhm. il faut nga xam a équité euh, euh, euh, équitable des fois ku góor ki mën na tooñ. Mhm. mais comme kilifa kilifa ku ndaw si la bu ci kanamu ndaw si boo ne ko yaa tooñ directement musiba mën na am. mais ah. di nga arrangé. Mhm. ba ndaw si génn nga toog jàkkaarloo moom ne yaa tooñ. waaw waaw. mais est-ce que est-ce que Zahra moom est-ce que Zahra moom est-ce que Zahra moom dina ko comprendre noonu moom moom gisoo ko noonu de demee. yàlla yàlla suñu borom waa Zahra ma Zahra mu wax waa Zahra nga ni. ñëpp ma yàlla mi ñu bind sax dafa teg justice pour ñëpp. mooy gis nga nit tooñee dafa am ñaari mbir yu psychologiquement parlant. Mhm. gis nga nit ki ñu tooñ dafa soxla dégg ni dañ laa tooñ. ngir mhm. xolam mën a giif mu mën a baale. Mm. yow mi tooñ nit nga xam ni dara lu dul nit. yonent bi sallallahu alayhi moo ñu gënoon fuuf te heure bu daan jéggi wàcc yoon yàlla da koy recadré waat. d'accord léegi kon dégg na la léegi kon ñu bàyyi euh, sëñ bi moom mu àggali waaw may may ko mu àggali waaw léegi may ko léegi voilà léegi kon sëñ Sidi dégg na li mu wax foofu acca xam nga soxna Fatima bu fekkee dañu dañu dañu jël rek mhm. li ñu tënku muy diine mhm. Mhm. xam nga diine aussi la mu xamal ndaw si mooy lépp lu xam ne sa jëkkër sa borom kër tere na la ko ba mu des mooy yàlla bàyyi ko wér na ëllëg mooy tool responsable loolu jigéen ñi xam nga jigéen ñi dootuñu appliqué loolu. parce que Zahra may ko Zahra may ko mu daaneel may ko mu daaneel. Zahra Zahra may ko mu daaneel comme ça moom bu ñëwee. foofu dafa am lu may tabaxal foofu lu tuuti. mooy lan waaw du que xam na fi ma jëm. dafa am lu may tabaxal léegi Zahra pour pour pour débat bi pour débat bi mën a neex tuuti. Euh, léegi Zahra la euh, Sidi mu daaneel après nga ñëw nga nga nga cabaxal. Mhm. waaw allez Sidi waaw Sidi Adja. xam nga xam nga lépp euh, problème mu couple xam nga soxna Fatima Zahra. Mhm. Mhm. boo xoolee ni muy défendre. dafay mel moom dafa mus a nekk victime. non ça ne veut rien nag. moom ne moom ne non foofu moom maa fay dugg moom nee na elle est constat. c'est un constat la seetlu euh, parmi les femmes yi ñuy ma di déglu mu mu mu dugg fa euh, daal di euh, def liggéeyam comme ni mu waree comme ni muy def nii léegi yow est-ce que mën ngaa ñëw leeral li tax yow nga wax li nga wax yow Sidi. voilà voilà moo xam nga su ma dogee rek déjà. <laughs> damay damay mujj retourné waat voilà. mais mais mais yow léegi yow man ma posé la benn question bu précis Sidi ñi nga xam ne ñooy ñëw di la seet si souvent. di la wax seeni i problème est-ce que c'est un problème commun est-ce que ñoo bokk chaque fois même problème bi euh, affaire lan la exactement li ci ëpp lan la exactement. mais pratiquement parce que da ngay nekk bitim réew. Mhm. fexe ba sa jëkkër ñëw. Mhm. bon bu ñëwee. Mhm. problème mu jalousie da ngay gis problème mu jalousie la. Euh, firange jour waaw firange bu métti sax. Ah. parce que da ngay ak jigéen ñëw. sa jabar bu xasee ba ñëw. da koy tegal ay paramètres maanaam fii nga war a yem. Mhm. waroo dépassé wala ñun parce xam nga nit aussi. Mhm. bien vrai que foofu ànd ak moom mais mhm. su buñ fa àndee aussi tamit teguwul si diine ça dama dama honnêtement lay wax. nit ki waroo ko tegal paramètres nit ki dafa war a am aussi liberté. xam nga mais rek sëy rek sëy rek wax dëgg yàlla am na foo xam ne rek l'islam joxu fa jigéen liberté totale. te dafa am loo xam ne moo yàq tey suñu couple yi nga xam ne. ñun ñi nga xam ne dañu yaroo si diine islam. nekk ay jullit dafa am lu ñu yàqal muy tubaab bi nasaraan muy émancipation. Hmm. muy égalité parité ça voilà. Hmm. façon yooyu rek. Hmm. dafa dem ba nga xam ne ni les féministes yi nga xam ne ñoo nekk si àdduna bi di ko xeex dem ba jot seen droit dem nañ fexe fexe ba xëccoo ba fexe droit euh, euh, journée internationale de de la femme dafay am. dem nañ ba jigéen ñi dem nañ ba am force bi nga xam ne ni tey mënatuñu mënatuñu euh, jig góor ñi mënatuñu leen jàll fenn li nga xam ne mais mais sëñ Sidi sëñ Sidi sëñ Sidi mais problème bi dëgg-dëgg problème bi lan la xam nga peut-être yaa ngi élargir ci wàllu loolu c'est dans le monde problème yooyu ñuy gis dëgg la mais ñoom dëgg-dëgg couple yi li ñuy am fiiraange wax nga ko problème mu lan la exactement parce que fiiraange mën na doon fiiraange mais souvent dina am ay problème yi ñuy am. lu dul économique peut-être lu dul fiiraange. Moustapha waaw. suñu suñu suñu dëkk. Mhm. mooy Sénégal ba ñu ne. Mhm. booy c'est les mêmes problèmes bu ñu demee bitim xam nga liy différence bi. Mhm. suñu bu ñu nekkee réew ma. problème bu naree am buy bëgg a judd rek kilifa yi taxaw. kilifa yan. mooy kilifa ku góor ki wala ku jigéen ki mooy ñi nga xam ne alors ñu rus nañ leen ci biir sëy bi. moo nekk moo xam nijaay ji la moo ah, xam moo xam yaay ji. woo leen ñu ñëw wala xarit yi ñu ñëw woo leen ñu waxtaan ak ndaw si waxtaan ak couple bi pour que mbir mu jaarat si yoon. waaw mais bu dem bitim réew. Mhm. loolu dafay jafe ndax la fa nekk mooy ñi nga xam ne ñooy président euh, communauté sénégalaise bi. Mhm. ñi nga xam ne ñooy daayira kër sëñ Touba gi. Mhm. ñi nga xam ne aussi également ay communauté lañ wala ay organisme ñi nga xam ne dañuy liggéey si wàllu boobu. loolu moo fay dese mais jigéen bi aussi day am benn influence des fois. di tax ku góor ki di def loolu. di tax ki di def loolu des fois di ko utal ay paramètres naan ko fii nga war a yem ak fële nga war a yem. parce que bëri yi nga xam ne nii. ku jigéen bu ñëwee automatiquement bu amee xarit rek dañ koy tegal ko ah fii Europe la. Mhm. Europe fii ak Sénégal bokkul fii dafa am yow da am say say say. droit li ah, mhm. lii mooy sa lii droit xam ga jigéen boo ko xamee lii mooy sa droit. Mhm. lii la ne mooy sa droit ci wàllu yoonu bitim réew yoonu moo moomu nga ne. déjà automatiquement. dina commencé rek petit à petit di commencé di diir mbagg rek jëkkër ji. di fippu daal waaw genre yooyu. a ndànk. Uh-huh. sëñ Sidi sëñ Sidi Lamine. sëñ Sidi Lamine. sëñ sëñ Dame sëñ Sidi waaw su ko defee tegal foofu sa loxo xam naa tegal foofu sa loxo bu ko defee soxna Fatima Sahra xam naa am na mi ngi guux ba fees yàlla ngir bëgg la tomb leer na ma soxna Fatima Sahra am na cabaxal bu ko defee dañu lay bàyyi rek njëkkanteeg waxtu bi ndax xam naa guux nga ba fees del waaw du question de guux sax xam nga euh, man ci waxin la waxin la pour ñi ñuy déglu waxin la pour ñi ñuy déglu <laughs> comprendre naa xam nga man ci science laay dox mooy xam-xam xam nga euh, li mu fi développé yëpp mooy li ñuy faral di gis li ñuy faral di dégg rek te man loolu ànduma ceeg moom zéro pour cent sax laay wax xam nga lu tax <laughs> mooy euh, sëy ci lislaam balaa muy départ dafa am lu ñuy wax labat ca ndoxaan ga ca ndoxaan nga hmm. ndaw si bu la nee duma ma sëy si damay joxe exemple nga dem toog ba mu neex la nga ne ko waaw c'est-à-dire que léegi danga nga war a sëy si parce que sama kër pare na pourtant yow danga nga d'accordoon ca ndoxaan nga ndaw si ne la du ma sama kër yaay ak sama kër papa laay toog nga ne ko naa ci loolu foofu charia day jox ndaw si dëgg à 200 pour cent ndax yow yaa bëgg a yaa bëgg a war sa kàddu sa ndoxaan nga bu la ni damay àggale sama jàng ba master nga ni ko d'accord naa bis bu ndaw si amee doom nga naan ko waaw toggalatoo ma yàqalatoo ma fóot bi parewul kër gi baaxul loolu yoonu charia newu ci yaa ko ne woon day àggale jàngam ba master da nga ko war a soutenir mu àggale jàngam ndax ba ngay takk jigéen bu jàng waroon nga xam ne sa dara sa lépp du mot. si ci ah, charia non non day maa gis jigéen non non xam nga charia dafa am li ñuy wax pré lu mun a ñàkk ci sëy ak lu a ñàkk ndax bale fobeere yow mun nga ko def. waaw dafa ne baat boo xam ne ngay takk jigéen gu jàng waroon ngaa xam ne seen lépp du mot. c'est-à-dire cest que nit ki booy takk jabar da ngay am xel maanaam da ngay réfléchir nga teg ci balance man kii bëgg naa ko day jàng man dama bëgg midi sama añ tege waa kii bu demee ba nekk cadre nekk docteur est-ce que dinaa añ midi moom mu may taajal nañu waxante dëgg xam nga il faut que ñu sincère mooy il faut nga xam yow li nga bëgg mais la plupart ci góor ñi xamuñu lu ñu bëgg jigéen ñi xamuñu lu ñu bëgg ndax man su may def dee hautes études mu leer ma ni kii dafa ñëw di ma takk te daf ma war a yóbbu kër famille mooy xam naa ni sama jàng dana yàqu te su ma ko nangul mooy sëy ba tas kon prévenir moo gën guérir suñu xel yi jëriñul dara lu du nga bañ cee dugg moo gën loolu nga bëgg a wax. wala moom mu d'accord accordé la que ni bis bu la yóbbee kër famem dana la dana la protéger ba sa jàng du yàqu ndax man du ma nangu ma fay ci sama doom ay millions ba mu egg benn état bi góor jóge fee ñëw yàqal ko jàngam ndax man mii sam papa daf ma fayal sama jàng bu ma egg fenn fi tey du ma nangu jàng ba vingt ans ba trente ans toog ci bangu école yi ba sonn ma ëlbatiku benn góor jóge fee ñëw ne ma ñëwal toog nga séer ma juróoma ay doom sa jàng naax saay sa mentalité parce que nit ki da ngay respecté dama ne boo bëggee jigéen bu lay yàqal midi ak euh, te du liggéey da ngay dem ci village bi nga tax koo xam ne jàngul tax koo xam ne liggéeyul amul benn occupation amul rêve mais doo tax une femme ok une femme buy jàng. ok ok sëñ Sidi. nekk loolu mooy indi problème mu tax gis na man mii di wax ak ma féministe. Hmm. man dama bañ féminisme parce que compatible ak sama diine. Hmm. mais su ma ok féminisme fekk na jotewul dara ak loolu. mais mentalité dafa évoluer il faut que ñu accepter que ni tey fii ñu toll jamono bii 2022 la woon ca jamono quarante ak jamono bii du benn loolu acceptation la laaj mooy contexte bii may dund il faut que ma méngoo ak sama réalité. Fatima. 1440 ah, voilà sëñ Sidi waaw Mayel Sidi. 1443 ans ba yonent bi làqoo ba léegi Fatima. alxuraan mu changé virgule. no mais li li may wax ne alxuraan ko wax li ma ne fii alxuraan moo ne boo fekkee jigéen nga d'accord ak moom ca principe yooyu yow góor bi waroo wor di teggi sa principe loolu alxuraan mais mais léegi sëñ Sidi comme moom wax na loolu léegi yow comme teggi nga ko teg fa dara. foofu laa bëggoon foofu laa bëggoon a ñëw. da mhm. ngeen pare nekk vérifier laaj ku xam sëy laa wax ku xam sëy jàng ko ci kitaabu nekkaax yi jàng ko ci kitaabu doxaat waaw ñu Zahra léegi kon Zahra may ko may ko moom mu tontu léegi sëñ Sidi tontu sëñ Sidi moom moo yor parole léegi ñu bàyyi ko moom mu tontu waaw. soxna Fatima Zahra xam nga sëy dafa mhm. bu baax sax il faut xam ne. Mhm. Euh, tarbiya boobu ñuy wax. ci lislaam lañ koy teg lépp culture. mais eh, parce que sëy bu ñëw tudd sëy ñun en tant que julit ci l'islam la war a tegu. ah tey. est ce que ñun xam buñ ko diine buñ ko tegee si même yow sa jëkkër waxee sax yow jigéen waroo hausser le ton maanaam waroo yëkkati sa baat ci kaw sa baatu jigéen mhm. ci maanaam yëkkati sax yàllaa ko njëkk a xaraamal ndax yàlla daf ko méngale ak ñi nga xam ne ñooy bàyyi ma yi. waaw ah, waaw ñu waaw sax ñu nga bàyyi ko mu mu développé. boo xoolee sëy yu bëri léegi am ay jafe-jafe. Mhm. te parce que dañu bëgg a jël sëy di ko méngale mu ànd ak jamono. te sëy d'accord mën na am mais sëy buy dem bay ànd ak jamono tegu si diine. Mhm. tegu si diine jamono mooy méngoog diine loolu moom dëgg la di diine kon mooy méngoog jamono mais diine moom du changé du changé contexte. donc donc nañ ko teg si diine. waaw mais dama gis na yow li ngay développé yëpp gis nga bu ko jigéen ñi déggee. Mhm. jigéen ñaa ngi koy dégg tamit am na ko yàgg naa leen defaan rek. Uh-huh. mais tey du ma d' accord. taw par exemple. d' accord naa am na si góor ñoo xam ne xëy na naam manqué nañu ba tax problème couple yu bari bu amee jafe-jafe aussi seen maté bi moo tax. loolu gën naa ko parce que dama koy arrangé bés bu ne. dëgg la. Uh-huh. Uh-huh. mais rek dañu xam ne jigéen ñi sëy jaamu yàlla. bu baax dafa sacré. si nga boo xoolee. la la la ñi nga xam ne par exemple ci biir diine islam dañuy wax si sëy yëpp si nga ko jigéen ñi doon pratiquer góor yi di ko pratiquer benn problème du am sëy wu dëgg la bu bàcc te bu fekkee ne bu mhm. góor ki dafa am fàtte dem bu jigéen ko aussi la moo waroon def si sëy bi dafa ko mais sëy boobu compliqué xam nga da wax lu am solo muy wàllu communication te ñëpp xam nañu sëy contrat la la ngeen waxante da ngeen ko war a respecté si kaw mu tegu si kaw ci kaw mu tegu si kaw diine ndax yow mën nga am sa soxna nekk bitim réew bëgg a labati beneen soxna mais soxna si dee wet ne du fa jàll doo takk beneen jabar xoolal loolu dafa am si yéen te loolu aussi kenn du ko développé. loolu beneen domaine la. xoolal loolu moom ah loolu moom bugguma ci dugg si parce que loolu xoolal jotewul dara ak problème yi daam gis nga problème yi am. parce que man yooyu yëpp bëgg ko ci. parce que. tiraanga googu di leen jàpp aussi mooy jàpp góor mooy am problème ah, man man pour la polygamie dama koy prôné ne jigéen ñi bu ngeen amee xel ngeen bëgg a nekk mel ni Fatima Zahra xam ah, ah, nga bëgg a liggéey ne nga bëgg ci dugg bàyyi boo polygamie da lay arrangé. baax na baax na Zahra léegi léegi sëñ Sidi waa daaneelal foofu rapidement ñu jox ko moom mu wax waaw. Papa. Mhm. boobu ñu koy posé question mu ñuy répondre Fatima Fatima bii. <laughs> kenn mënu ci dindil ragal parce que xam nga duggee. xam naa ne ma kan de. jël propre démb bi ngeen di daanu te laa leen di bañal. moo tax fi nekk nii damay jël samay gants ndax ba tey waxaguma damay fi mu nekk nii ci introduction rek laa nekk. mais mais léegi sëñ Sidi. sëñ Sidi sëñ Sidi. yow da ngaa gis ni jigéen ñi jigéen ñi jiw am jikko daal lu ci bari ñoom seen jikko ñoom la ñoom ñooy indi yenn problème yi quoi ci ñoom la jógee. ëpp la léegi kon kon baax na merci léegi sëñ Sidi ñu bàyyi Zahra ñu posé ko question comme da nga ne nañ ko posé question ñu bàyyi ko <laughs> bañ développé léegi sëñ léegi ah, léegi. mais mais mais léegi juste. da ngeen may bàyyi ma développé ndax du ngeen ma tënk moom. Ah, xam nga invité ngeen ma mais mais émission yi émission yi yaatu na. y'en aura beaucoup d'autres yi dinañ ci ñëw lu bari soo witu sa dimanche prochain mais mais mais Zahra. Euh, tey par exemple tey wax nañu tey wàllu wàllu jigéen ñee góor ñi seen problème yi ñu ci bëri ne nañ jigéen ñii yow yéen a ngi ne góor ñi itam euh, donte yéen a ngi def euh, yéen a ngi def balance bi d'accord balance bi gis naa ko waaye mais nag dama bëggoon benn question nga tontu ma ci. Hmm? est-ce que yéen problème yi lu mu doon doon problème est-ce que yéen a ngi nangu solution ci biir couple bi. waxtaan pour solution parce que am na ñoo xam ne ñoom dañuy catégorique dañuy naan dañuy génn sëy bi wala dañuy demal seen bopp est-ce que est-ce ut solution pour sëy bi mën a dox toog man li tax li tax ma ubbi sama ay formation mhm. ubbi groupe yi ma ubbi pour accompagner jigéen ñi so waxuma la solutionner mais problème ya jiitu woon xam nga par exemple bari na ci yéen ñi di wax ci rajo yi wala yéen ñi ñuy seet si mhm. da ngeen di joxe solution calmant la mooy calmant mooy waaw mu muñal ko yow ndaw yow góor mu muñal ko ñu dem àndaat fekk problème ba ma nga fa jógewu fa. waaw mais yow léegi loo ñuy jox. lan moo causé problème bi déjà. Mhm. fexe xool problème bi wax xamal leen conscientiser leen ci conséquences yi mu mun a jur déjà bu ñu paree jox leen ay solutions yoo xamante ni dootuñu dellu si waat. Mhm. ndax dëppee say euh, xam-xam la gis nga lépp loo xam ni maîtriser nga ko xam-xam. day nekk li nga xam ni yow dootoo soxlaati ku la lijjantil problème parce que sa problème déjà amatul existé tul ndax problème du dara dul ñàkk ñàkk compréhension parce que dañuy wax ne àdduna bi ku ne ak lant bi nga takk moom nga koy gisee tey su ma takkee noir fii moom laa koy gisee boo takkee euh, lunette dem yoon moom nga koy gisee mais léeg-léeg bu ñu tekkee suñu ay lunette rek ñu déggoo loolu dafay delluwaat ci ku nekk yow compréhension ba nga am ak image bi ngay xoolee sa jëkkër image bi ngay xoolee sa jabar ku nekk nga guux ba fees dell te fekk ne li ngeen guux bu ñu leen dimbalee le maanaam lu lëntu la ñu hmm. lemmi ko benn par benn di ngeen déggoo te compréhension bu xasee ba am ci sëy rek tolérance am ku nekk xam ni duma sa noon doo sama noon mais dañuy jàppalante ngir ëllëg futur bu meilleur ngir doom yu stable parce que nag kaay ma wax leen lenn ci conséquence su sëy bu bon gis nga tey criminel yi ngeen fii gis bandi yi ngeen fii gis xale yu perdu yi ngeen fii gis ci sëy yu bon lañu ñu jógee gis nga sëy bu la ci gën a dama ne bëri na sëy yoo xam ne tasuñu de hmm. mais doom yi ci génn kenn du ca kontaan yàlla du ci kontaan société bi du ci kontaan hmm. ay sëy yoo xam ne tas nañu waaye xale yi rëcc nañu parce que gis nga mariage bu toxique boo ko déggee mooy lan day jur ay trouble psychologique gis góor ñii di dóore dañu am ay trouble désorientation mentale tey boo demee ci hôpital eh, tey forum yu mag yi nga xam ne ñu ngi koy ubbi ci tubaab yi dama lay expliquer li nga xam ne dama ci opérer dama ciy liggéey ndax damay dem ci centre violence faite aux femmes dama leen di assister surtout Sénégal yi fa nekk wala ñi nga xamante ni dañu nekk dañu subir ay violence conjugale mhm. parce que li man neex ci tubaab yi lenn la mooy dañuy topp kaa ba mu sës fan la commencé lu ko waral lu tax góor ñi di dóore lu tax jigéen ñi tamit bu dóore amee duñ ko teel a nangu lijjanti ca ba teel lu tax ñuy nangu toog fa bañ leen di lu tax ñuy nangu ainsi de suite ba comprendre li xew. waaw loolu loolu ay étude la ay waxtaan ay yu ñuy def pour mën a xam dëgg-dëgg problème bi fan la mais man dama ne par exemple tey comme problème de couple la ñuy wax ak sànq si di li mu wax loo tax i faut ñuy dugal question léegi sànq ba nga ne am nga wax ba nga wax ne souvent jigéen ñi dañuy bëgg seen ambition ñoom itam mais est-ce que jigéen bu ambitieuse trop mën naa toog ci couple est-ce que bu bu bëggee bu demee tukki. Euh, ambition boobu mu am est-ce tax mu mën a toog ci ci sëy loolu est question lay ñaari ambition ñaari ambition mënul am suuf. Euh, gis nga àddina bi. Mhm. impossible existé wul xam nga lu existé ay nit ñooy sëy. Mhm. ay nit xel mature am ouverture àdduna ba a nekk nit boo xam da nga limité wu ci àddina lan mooy limité ci àdduna mooy gis-gis bu xat nit boo amee gis-gis bu xat sa xol day xat sa jëflante day xat yow sa jëm bopp da xat parce que xamoo ouverture ubbeekuwoo ci xam-xam ubbeekuwoo ci àddina sa xel du ubbeeku te sa xel boo ubbeeku da ngay jàpp ni yow li nga gis loolu la. bu buñ la indilee ay preuve sax da nga déedéet man li ma gëm loolu la te loolu bu nekkee ci xol nit day am problème ndax tey ñun jigéen ñi par exemple tey ñun jigéen ñi dëkk bu mel ni Sénégal tey boo nekkee jigéen bu ni man ngay muuru nga dem ci gynécologue dañuy wax ne la plupart ay sage femme yu jigéen ñoom mais gynécologue yu jigéen amuñu góor boo moytu moo lay réew wala moo lay assisté mhm. lu ko kon jigéen ñi jànguñu mhm. tey jigéen am na parce que jigéen gis nga structure yi dafa war am ay jigéen tey loolu il faut que ñu nangu ko ndax l'islam encore une fois newul jigéen rôle mooy mu toog ci kër rek. sëy mais xam nga xam nga ambitieuse. <laughs> <laughs> ambitieuse ambitieuse ambitieuse dama bëgg a dugal foofu loolu rek pour wax ne ambitieuse. mën nga am ambition pour liggéey mais dafa am ñoo xam ne seen ambition dafa dafa maanaam da leen di sonal pour ñu mën a am vie de couple. parce que ñoom bu ñoom dañ ñoom. manque d'organisation xam nga àddina loo gis lu nekk am équilibre lu ëpp tuuru. ndax non seulement du baax ci sa santé ji même góor góor bu fi gën a nangu liggéey ba yow taloo sa famille sa jabar du la gis boo wàccee yaa ngi nelaw sa jabar bu pour mu waxtaanee waxtaan bu egg yaa ngi xandoor wala parce que da ngay épuisé mentalement épuisé physiquement sa sëy tax du neex. Hmm. loolu baaxul ci jigéen baaxul ci góor doomu aadama dafa soxla rëppo ak répit mooy nit ki même bu dee jigéen nga lépp looy dugg lépp looy engagé na nga ko mën. te it boo duggee ci sëy da xam ne li ma wax encore fois moomoo sa bopp. Mhm. mooy li may wax jàngal jigéen ñu communication. man sama ay cours sama ay formation dafa may cours de communication. communication non verbale communication verbal communication psychologique communication non toxique mooy nit ki ngay waxal balaa dara da nga koy xam mooy kan. xam ni ngay waxee moom ci yan moment ngay waxee moom ak yan parole ngay utiliser ak nan nga ko mën a manipuler parce que gis nga nag nit ki bu jigéen ñi il faut que jàng manipulation parce que góor ñi dañuy manipuler da ngay gis góor bu la ba lekk sa xaalis góor la manipuler ba yàq say rêve say ambition ñoom it da leen di manipuler rek def loolu lu ñu bëgg manipulation dama ne euh, jigéen ñi bàyyi leen di daw ci sëriñ ñi di yàq seen xaalis góor ñi liñ naan góor xale la effectivement du question de xale la mais nit ku nekk liñ naan koo jaay doole mu xañ la sa wërsëg nañu waxante dëgg ndax nit ki nga xamante ni bëgg na la nga bëgg ko. dëgg la loolu loolu li ngay wax nii soxna Fatima. soxna Fatima li ngay wax nii dëgg la. mais ah. ma laaj la tey am na jigéen ñoo xam ne bari na Europe lu ñu koy wax. wala bitim réew rek bitim réew. ni bari na jigéen yoo xam ne bu ñu fa demee bu ñu gisee seen góor ba ñu nekkaloon. mu muy muy muy muy yox yox yi dañuy dem xool seen bët day ubbeeku ci beneen góor boo xam ne dafa am alal wala mu mu ngi nekk ci lu kawe loolu. bàyyi ko fa ne ñukk dem ci keneen. alma bu leen nangu soxna Fatou. waaw waaw waaw dama ko dama ko bëgg laaj rek loolu loolu gis na ko loolu réalité la réalité la dama bëgg dama bëgg dama bëgg rek moom mu leeral ma loolu. waaw waaw man Fatima Zahra bi ma nekkee Italie ba tey. Mhm. léegi mu def ñaar fukki at. waaw man dégg laa am ci loolu. ndax man mii di wax ak yow. lan nga ci am lan nga ci am nga ne dégg. ma ñëw rek tuumaal nañ ma lu mel noonu pour te dire que ni man loolu en général góor bu ko wax sax ma la gëm xam nga lu tax mooy dafa góor bu échec yi échec dafa métti ci góor góor bëggul échec góor bu échec daanaka addunaam dafay déséquilibré dafay métti. mais échec mooy lan ban échec lan la ci liggéeyam ci couple lan la ban échec la. échec ci couple mooy tey parce que dafa métti ndax tey nga indi sa jabar ngeen dem ba tas ngeen dem ba loolu déjà gàcce la ci couple bi échec la ci couple bi échec ci yéen ñaar ñëpp. léegi nag man dama ne euh, dafa am man lu ma gëm. mooy mais yow dama bëgg nga tontu ma da nga ne yow loolu dégg rek nga ci am loolu. li ma la wax nii musuma cee gis ka musu musuma gis kenn koo xamante ni ñëw na confessé ma parce que jigéen dañu confessé wu. am na ci jigéen yoo xam ni par exemple. mais que dinañ la wax dëgg gi est dinañ la wax dëgg gi est-ce que dinañ la wax dëgg gi loolu mooy problème bi. bu baax am na ay jigéen yoo xam ne léegi léegi Zahra ma yàlla Sidi mu poser question parce que c'est important waaw. keneen ku ma may ko su ci wàllu wax ci bëreetul agression yi am si biir couple yi jàpp est yow gis nga ne lu ëpp jigéen yi ñooy agressé góor ñi ba ba rey sax da si am boo xoolee jamono yi kenn ni jigéen ñi rey seen i kër moo ëpp ko góor que xool nga statistique yi jigéen chaque trois minutes jigéen dee ci loxo jëkkëram mais mais xool tigi fan la problème bi di juddigi fan lay juddoo ci ku jigéen ki wala ci ku góor ki ah, jigéen ñi lay seen jëkkër lay doon est-ce que xam nga est-ce que suivre nga yi man damay suivre cas te li ma wax boo weede demal ci archive yi góor jigéen bu fi rey en Italie en Italie di ko dóor di ko dóor ba si jot bu fippu dara teg ko ko mu dee non soxna soxna Fatima am na ci ñoo ñii nga xam ne dañuy tàngal diw wala dara sotti ko seen ah, borom kër lañ def dafa a takk ñaar loolu weddiwuma ko loolu lu am la am na jigéen yoo xamante ni dañuy rey seen jëkkër ci ay motifs yoo ko xam mais dama ne la plupart ci jigéen ñi rey seen jëkkër majorité bi cas yii mooy légitime défense li ñuy xool ci monde bi monde entier waxuma rek Sénégal dans le monde entier chaque mhm. seconde ba xamu jigéen rot te ci loxo jëkkëram la jóge nga mhm. dem sax ba tas ñaan baat ñu di la topp di la asib mbaa di la taal mbaa di la fekk ba sa kër ray la te yow tas nga ak nit ki ba pare. mais léegi merci Zahra Zahra Zahra Zahra Zahra merci euh, ñu ma jox Sidi mu mu mu am lu mu dugal foofu d'abord Sidi bu fekkee am na lu mu mën a dugal foofu Sidi waaw. waaw c'est-à-dire euh, pour wax ne rek soxna Fatima bi kenn mënu ko convaincre elle est bien préparée. <laughs> mais dimanche bii di ñëw dimanche bii di ñëw dimanche bii di ñëw incha allah. bu euh, ko ki ñëw. ñu préparé ko moom parce que moom moo gën a xam ne. moom elle est en train de défendre les femmes xam nga yi wàllu émancipation rek ni jigéen fexe ba défendre gën a dëggal ci bopp. fexe ba xam ñun yàlla moom yàlla moo ñu dénkaane gis nga góor bu ci bëgg a tekki góor bu na mais mais mais Zahra Zahra par exemple ba Zahra man la xoolal pour pour ma tëj pour pour pour balaa ñuy tëj rek pour wax la ni Zahra ak Sidi yéen ngeen déglu ma bari na ñoo xam ne itam nee nañu. bari na jigéen yoo xam ne ne ñoom dañuy tëj seenu kumba xañ ko seen jëkkër te loolu ay problème yu bari la ci bitim réew. te naa la laajaat euh, mën naa la laajaat beneen question mooy lu tax ñuy ñuy punte jaar. mais man euh, man maa la man maa la posé question dama bëgg nga tontu ma lu tax loolu mu mu fay bari ba noppi source de violence la loolu. maa ngi ñëw xam nga xam nga problème mu sénégalais li tax sénégalais problème du mu sa ci àddina mais day jëm kanam mooy sénégalais day ñëw ci fee bi te du xool cause. <laughs> Oh. xam nga non non si si si Zahra Zahra <laughs> mais Zahra mais Zahra jigéen hmm. dina mere ko borom këram mu fekk cause ba peut joxu ko dépense bu tooy wala peut-être jote woon nañ ci benn mbir d'accord mais lu tax muy téye boppam te souvent xam nañ ni góor ji kilifteefam téye sa bopp boo ko defee problème day am. est-ce que yooyu yaa ngi ciy waxtaan ak jigéen ñi. jigéen man gis naa fi ay cas indi jigéen fii ci Europe ci sa saalu jabar di fa fanaan ak moom génne sa jabar mu fanaan ca saal ba nga fanaan ak jigéen ci biir kër gi. te sa jabar non non non loolu loolu loolu loolu benn la donc da nga koy compter boobu ba doon def pourcentage zéro virgule zéro virgule non non non non sëñ euh, Zahra Zahra laa bëgg a waxal Zahra loolu bu doon bu doon pourcentage la zéro virgule zéro nangam la loolu loolu loolu bariwut. du ma ci d'accord gis nga fii sénégalais mooy ki nga xamante ni fu ñu jàppee góor ci infidélité ñu ne jigéen bi muñal c'est normal mais góor moom bu ñu ko jàpp ci infidélité non da ngeen a. Ah, loolu moom am nga ci plein droit loolu moom. loolu moom dëgg la loolu moom dama ciy ànd ak yow. yàlla dafa ne nga takki paa nga njaaloo. dama ne mm-hmm. jigéen bu fi ci kër njaaloo siiwal ko comme bu doon moom la nam lay siiwalee tant que ñun lijjantiwuñu kaa yii mbir yu du lijjanti. non loolu moom Coly. Coly loolu moom nañ leen ko nañ ko may quoi loolu moom am nañ ci plein droit d'accord naa loolu léegi kon dimanche prochain certainement peut-être bu fekkee di nga am jot. bu fekkee mën nañ ko ñun ñëpp ñu déggoo ci ñu mën koo àggali parce que temps bi xat na te fu mu toll nii jeex na. fu mu toll nii xam naa ku nekk ak <laughs> say seconde ku nekk da ngay jël benn 10 secondes nga tàggoo gaaw comme ça ñu dem avancer ak programme bi ba dimanche prochain incha allah après peut-être dinañ ko waxtaanee ci groupe bi incha allah. incha allah voilà soxna Fatima laaj na nga invité waat ko. Mhm. alors bu boobaa aussi ma jigéen ñi nekk Maroc yu mel ni moom. bu boobaa ñu jàkkaarloo ci waxtu bi mënu kaa moom. ok waaw dëgg kon kon soxna Zahra kon ñu bàyyi ko mu tàggoo benn yoon Fatima. ak bu baax a baax a baax. Uh-huh. xam ne ci parce que nit aussi. Mm-hmm. ak lu mën a doon lépp loo nekk di si yëngu fexeel boo maîtriser ko. dëgg la loolu wér na man foofu apprécier. macha mm-hmm. allah xam naa ne mm-hmm. koo xam ne même jigéen ñi sax. bu la jigéen fekkoon euh, jam la sax. yow di ko mën a defan ba jigéen bi nekk si loolu moom xam nañ ko donc ñu ngi lay gërëm di la sant. yëpp c'est une kon yëpp diaspora bi yëpp. macha euh, allah alors suñu mbokk yi nekk Sénégal. dëgg la donc sëñ Dame lay di la gërëm bu baax encore une fois. Hmm. Euh, jërëjëf sëñ Sidi dimanche sëñ Dame. donc ñu bu baax ba dimanche prochain incha allah. jërëjëf jërëjëf sëñ Sidi Zahra Fatima allo Fatima. jéggalu ndax euh, dañu amoon appel ci suuf. Mhm. Mhm. waaw léegi bu fekkee mën nga tàggoo rek euh, euh, ñu ñu jàll parce que émission bi jeex na. sa kàddu oh. mujj waaw man li may tàggatoo rek mooy ñu xam ni problème yi am ci sëy yi. dafa lié ak des choses plus sérieuses que jukko ju bon wala yaruñu leen. li muy liyeel en général mooy li ñuy wax trouble comportementaux yi. Mhm. bu ñu nee trouble comportementaux rek mooy nit ki. dafa am problème ci xel bi ci jukko bi te il faut que mu am li ñuy wax thérapie comportementale lan mooy thérapie comportementale. mooy ñun voilà pour pour pour pour beneen yoon la parce que émission bi jeex na. ñu ñu mën a tàggoo rek comme ça dimanche prochain incha allah ñu mën a développé waat yu bari. incha allah ñu tàggatoo ci loolu di wax ni problème yi niñ ñu koy raay raayal ci kaw gën na profond nañ ci bàyyi xel ñu toppuñu rek. Mhm. bu ñu toppee ak ñun moom léppay leer. Hmm. ñëppay gindi. ñëppay amul benn problème. <laughs> di leen lay lu bari par dimanche bi. incha allah <laughs> jërëjëf Zahra c'est gentil ci ci participation bi hmm. <laughs> ko lii maa ngi nii delloo ziar ñëpp di leen jox seen wàccuwaay Baye Mor maa ngi koy nuyu depuis euh, Touba Aliya moom it mi ngi ci déglu bi ak ñi nekk Touba Aliya yëpp. Hmm. di ñaanal ñëpp jàmm. ñi ñaanal waa kër bàcc Massamba si la Modou Assane Ndiaye Baye Moustapha Cissé ñi nga xam ne dëdd yàlla yokk seen leer jërë ngeen jëf ba dimanche ak jàmm. amin jërëjëf kon mu ngi noonu émission bi jeex na euh, lii lañ leen andiloon tey ci teranga tukkikat yi ñu ngi leen di xaarandi incha allah dimanche prochain même heure 18h30 lay doon di jaajëfal bu baax a baax tey Zahra euh, Fatima Zahra Dieng tey waxtaan wu am solo def na ko euh, ci YouTube bi sax gis naa ko muy def ay ay waxtaan foofu kon ñu koy jaajëfal bu baax a baax ci jàppale gi muy jàppale jigéen yi nekk foofu à l'extérieur jërëjëf sëñ Sidi Lamine Jaxate moom itam euh, bàyyi lépp saa rek nekk ci euh, sénégalais yi nga xam ne ñoo nekk foofee ci diwaanu Maroc jërëjëf Baye euh, Dame Koumba Gueye ñuy jaajëfal mboolem ñi nga xam ne ñoo nekkoon ci teewlu bi kon incha allah programme bi day woy 20 jot na ñu dem.